jërë ngeen jëf mbokkeen tax na di ñuy topp ci Medina TV ci Sénégal waaye ci àdduna wërngal këpp ñu leen di nuyu mbokk leen ñaanal leen jàmm bu baax a baax teyit di ko sàkku ci yéen Medina TV di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen di ànd ak moom ngir lépp loo xamante ne actualité la ci réew mi ak ci bitim réew ngeen mën ko am à temps réel mbokk yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo kon dañuy wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun na ginnaaw tiis bi nga xamante ne kon dal na ci askanu ngéwél ak ak wuy ji suñu boroomu suñu yaay suñu maam ajaratu daara mbay di wéyjur kon ci suñu papa mbay jee fay xibaar buy fësal ne kon dafa wuy ji boromam ginnaaw tawat boo xam ne kon tëraloon na ko waral kon eh, li nga xamante ne rek eh, moom mooy njaboot ga daal di sëngeem rawatina nag askanu ngéwél ngir ñàkk boobee nga xamante ne kon ñàkk nañ ko seen wéjur wu jigéen woowee ginnaaw kon ba ñu ñàkkee seen eh, papa joojee di fa vie di ko jooy te noppeeguñu kon moom suñu yaay daaroo fekk ji na góoram googee ca barzak waral kon Médina TV daal di yëkkati njaalam rek jébbal ko képp koo xamante ne doom nga mbokk ak xarit ca famille boobee di ñaanal rek ki nga xamante ne kon moom moo fi bàyyeekoo di aja ajaratu daaro mbay moom itam yàlla yërëm ko jéggal ko ay bakkaaram tey tàbbal ko janatul firdaw si si barke cheikhul xadim waaye rek jaale njabootu ngéwél yëpp jërë ngeen jëf